mooy am na ñoo xam ni ñi ngi wax ni am nañu euh, diplôme euh, professionnel te kenn jëlu leen ñooñu euh, boo gisee jëluñu leen am na ñoo xam ne seen diplôme professionnel maanaam diplôme bu authentique maanaam du diplôme boo xamante ne bii diplôme bu baax la wala boog nga am diplome bi te am lu ëpp ñeent fukki at boobu tamit duñ la mën a jël léegi nag li ci

pour que bu école ubbee rek ñu dem kam euh, tàmbale euh, euh, jàngale may wax aussi ni amul ñaaru ñaari enseignant ñaari type enseignant ci seen li ci nekk mooy différence bi rek mooy ñi dañoo def crème concours ñuy def recrutement à part loolu amul benn différence am na aussi ñu ñu ñu def concours recrutement élève professeur ñii ñu jël leen aussi ci recrutement amul benn différence ci plan de carrière suñu paré ku ci am diplôme professionnel dang koy app dang koy dugal bu def dossier pour euh, euh, fonction publique intégrée la ah, ñi ci dess nak bu paré sen buñu défé sen CFS amé amé sen examen CRFP e, am sen CAP ginnaaw buñu défé visite de classe donc ñooñu tamit dañuy déposer dossier pour intégration donc amul ñaari enseignant ci système bi benn type enseignant kese mo am ci système bi ak benn plan de carrière boo xamante ni bi lee euh, fonction publique moo koy moo koy